bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lilaa walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nasaluka xayra ma fi haadal yawm wa xayra ma ba'd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 nu romb ko te fekk ne mokkut léeg-léeg nu romb ko te fekk ne rombin wa du noonu dañ koo roy léeg-léeg nu romb ko fekk moo war nekk sunu bind yooyu la arisaala di jéem ngi ci àndoon noog yéen bi ñuy dem ci noppalu gi ba agsi woon ci <laughs> liy waral jàpp njàpp ñaari yëf la léeg-léeg day nekk lu war léeg-léeg day nekk lu ñu sopp lu war nag boo ko déggee ci làkku arab mën nga ne farata ndax waajib lañ koy wax kon ñaari xaaj yooyu ñoo am mu bëgg a ñëw ci xaaj bu njëkk bi lii waral jàpp junjoon nañ ko ca ba ñu nekkee ca di bëgg a bër te mooy julli la jiitu ci lay waral njàpp mooy julli moo xam farata ngay def moo xam naafila ngay def ba am ñu dem ba ne xataa jullee néew ñaaral ba ci liy waral njàpp mooy tawaaf kaaba ga ku nara tawaaf dangay jàpp ku sa njàpp toj da jàppiwaat ñetteel bi laal kaamil walla jël kaamil ku nar a jël kaamil da ngay jàpp ñetti yëf noonu yoo xam ne njàpp daf cee war ma ñëw ci tomb bi ci teg nag mbokk yi mooy yi nga xam ne dañoo sopp ku jàpp maanaam ku koy def dañoo sopp nga jàpp euh, sala yow mi note ak soxna ndey faa toog euh, tunkara maa mbay ay yëfa ngi nii yoo xam ne dañoo sopp ku leen di def nga jàpp danaa ci lim juróom benn ba ci jiitu mooy ku nara zikrullahi sopp nañ nga jàpp boo jàpputit du la tee mën a zikr zikrullahi sopp nañ nga jàpp boo jàpputit nag du la tee mën a zikr loolooy tomb bu njëkk bi ñu note ko ku bëgg a def zikr sopp nañ nga jàpp waaye soo jàpputit du la tee mën a zikr bu ñaareel ba kuy bëgg a nelaw maanaam kuy bëgg a tëri kuy bëgg a tëri sopp nañ mu jàpp tëddaalem njàpp ndax alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon albarra ibnu azib ko sooy tëri na nga jàpp njàppul julli te tëdde sa wetug ndeyjoor te te ñaan-ñaan gii loolu la waxoon saabu boo ñu wax albara ibnu azib soo ñëwee sablal di bëgg a tëdd wala sooy bëgga a tëri na jàpp njàppul julli tëddee sa wetug ndeyjoor daal di ñaan-ñaan gi wala boog léemu allahumma aslamtu nafsi ilayka wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa aljatu dahri ilayka raxbatan wa rahbatan ilayka laa malja wala manja minka illa ilayka allahumma amantu bi kitaabika allazi anzalta wa bi nabiyika allazi arsalta fa isaa mittu wala boog fa fa in mitta min laylatika fa anta alal fitra loolu la tëjee ñaan ga mu ne ko soo ñaanee ñaan gi boo faatoo ci guddi gi benn bàkkaar la topp yaag liir bu juddu yéen yem waaw ñaan gi gudd na soo mënul léppit man ci baat allahumma aslamtu nafsi ilayka waaye comme pexe yi bari na léegi jombul ku leen topp ba fa ko Sud di yàq ca YouTube ba boo fa demee ñaare man koo topp ndànk di ko baamtu ba far man ñaan gi waaw ndax machine yéeg yëf yooyu ñi ngi dimbale jàngalekat yi ci wàllu woowu waaw ndax su defeem seen rajo bu ñu waxtaanee ba noppi dañ koy jël sotti ndi ko ko foofee waaw ñoom Nicolas ñu mel ni moom tey liggéey ci liggéey boobu yal na yàlla sàmm leen ngoog eh, kon loolooy ñaareel bi te mooy booy tëdd nga jàpp sopp nañu nga jàpp ñetteel bi sopp nañu ki yor jana ba nar tëdd mu jàpp waaw sopp nañ ki yore janaba te nar a tëdd mu jàpp maanaam nit a ngi nii koo xam ne soxnaam dafa soxla ak ay waaw mu jox ko ay léegi nag bëgguñu rekk nga daal di tëdd rekk nelaw jëmale ba set déedéet waaw bu fekkee dafa nara tëdd walla xelam nekk ci joxe waatug ay joxe ko ñaar yoon ci guddi gi na fa na fa njàpp dox ci diggante ba diggante joxe ay gi ak nelaw na fa njàpp dox walla diggante joxe ay gi ak joxewaat geneen ay na fa njàpp dox sopp nañ ko waaw sopp nañ ko bu la ko seex ngay gàndigaal mële ca gàndigaal doon jàngal ci wàllu xam-xamu médecine ak xam-xam yu bees yi danga joxaat yonent bi beneen cër bu gën a rëy bi nga ko joxoon waaw lu am solo la mooy njàpp loolu lu am solo la ndax joxe ay ba noppi tëdd yaa jana ba te su booboo jinne yi dañ lay ñeme jinne yi dañ lay ñeme te ñetti ndox yi nekk ci góor saw mas yu wat yoog màndi ñeenti ndox yooyu bu fekkee menn ndox mi moo doon génn bi ngay joxe ay yeneen ñetti ndox yi ñu ngi xaar ku leen jox ndigalu génn te soo soo tuuree ndox jàpp jox nga leen ndigalu génn euh, léegi embouteillage dootul am foofu circulation bi débouché wu te loolu day jural nit ki wér gi yaram ndax ndox yooyu bëgg a génn te nangu ñoo génn wala ñemewu ñoo génn dañuy laxasoo ci yaram wi te su boobaa mën naa jur ak wér di yu mel noonu la ko Cheikh Gueye Gandhi Gall di jàngalee yal na ko yàlla yokk wér te suqali daaram ngoog yooyu daal lu am solo la ku yor jana ba nee nañu di bëgg a ndékki na jàpp wala mu yor jana ba di bëgga naan na jàpp wala mu yor jana ba di bëgg nelaw na jàpp Amar ibnu Yaasir moo ko nettali salawaatullaahi wa salaamu alayhi jàngal ko ñam àndaloon bu ñeenteel bi professeur ci lii sopp yi ñu sopp ku jàpp waaw mooy kii sangu janaba lu jiitu muy sangu bëgg nañ mu jiital njàpp waaw kii sangu ba bëgg nañ mu jiital njàpp waaw raxasu galaxndiku saraxndiku fiiru ginnaaw bi nga xamee ne raxasu na ba noppi Euh, maanaam xubbeeku na beneen sopp nga noonu ci liñ sopp ci njàpp mooy bala ngay sangu ba nga sangu waaw nga nga jàpp kon ngeen baal ma juróomeel ba nee nañu sopp nañ ku lekk lu ñu lakk sopp nañu ku lekk lu ñu lakk nga jàpp hmm? waaw ku lekk lu ñu lakk xam naa kon <laughs> jamono yi nga xam ne lakk rekk xew waaw su ñoom seen suñ jenn papa ñu wax baay bàcc sekk yàlla na ko yàlla yokk wér <laughs> baay bàcc bu demee ci xew day dem ba ca jigéen ña <laughs> ne leen yor ngeen ni ganaar ñu ne waaw mu ni dimbali leen ñu rek bu leen ko lakk moom daal leen jox leçon boo xam ne bii mooy leçon lakk gi waaye daal eh, alayhi salaatu wasalaam ca ñam doon jàngal daf leen jaan daf leen daan jàngal ku lekk lu lu ñu lakk nga jàpp waaw soo na sopp nañ nga jàpp waaw ibrahima ibnu abdullah ibnu qaad nee na romb abu hurayrata radiyallahu anhu muy jàpp daf ko romb muy jàpp julli jotut tusbaar waxuma la takkusaan mu fekk ko muy jàpp ibrahim ibnu abdullah daal di koy laaj abu hurayrata muy jàpp kon daal di koy laaj ne ko atadri mimma atawadda ndax xam nga lu tax may jàpp mu ne ko déedéet mu ne ko min athwarin aqat akaltuha waaw mu ne damaa lekk nékk mu ne ko damaa lekk nékk waaw nékk bu euh, am xar amee doom soow miñ ci njëkka ratte dafa am nuñ ko daan def daf koy wowal koŋ waaw ñu teg ko ci taal bi jëfandikoo ko mu ne ko loolu kat moo tax ma doon jàpp ibrahima ibnu abdullah ji bëgg a waaru mu ne ko waaw li anni li anni samitu rasulallahi yaqul tawaddau mimma massati nnaar waaw rawahu ahmad wa muslim wal arbaa oustaz cheikh tànja mu ne ko yontu moo ne dee leen jàpp su ngeen lekkatee lu lu sawara laal loolu nag ci wolof mooy lu ñu lakk waaw dee leen jàpp su ngeen lekkatee lu ñu lakk addis boobu jëlee nañ ko sunu yaay Aysata mu ne yonente ba moo ne tawaddau mimma masati naar bi mus ahmad nettali na ko ak muslim ak nasaayi ak ibnu maaja kon dañ ko sopp ku ko defutoo nit nag dara du la du la ci fekk waaye comme dañ koo sopp te ñu déggoon ndigal luñ ci mës a dégg def ko bu ko defee la ca dem añ ñu añe ko loolu moo dugaloon Abu Hurayra te jàpp ndax lam lekk te lam lekk doon lu euh, lu ñu lakk juróom benneel ba ci yi ñu sopp ku jàpp mooy beesal njàpp tajdiidul wudu li kulli salaat beesal njàpp beesal njàpp mooy koo xam ne kii bi mu jàppee tosbaar ba ni kusaan jot njàppam tëjut waaye mu jàppaat loolu lañ tuddee beesal njàpp waaw sama njàpp tëjut waaye dama ko yeesal loolu lañ tuddee yeesal njàpp dañ koo sopp nag comme neex julli tosbaar sa njàpp tëjut ba tàkkusaan nga julli noonu amul benn problème wala julli tàkkusaan ba timis te sa njàpp tëjut nga continuer ci noona wala ku julli woon timis ginnaaw diggante ma sa njàpp tëjut mën ngaa continuer noonu waaye beesal gi nag dañ koo sopp beesal gi te mooy jàppaat waaw Burayda moo nettali mu ne yonent bi aleyhi salaam kaana yatawadda inda kulli salaat fa lamma kaana yowmu alfatxi tawaddaa wa masa ala xofayhi wa salla salawaat bi wuduin waxid nee na alayhi salaatu salaam yàgg naa def julli gu ne mu jàpp jàppal suba jàppal tusbaar jàppal takkusaan jàppal timis jàppal gee ñu ne waaye bisu fatxu xaybar gis nañ ne ba mu xëyee jàpp jàppaatut gis nañ ba mu xëyee jàpp jàppaatul julli suba tisbaar takkusaan timis gee ci menn jàpp Omar ibnul Xataab radiallahu anhu waaw ne ko yaa rasulallah innaka faalta shay'an lam takun tafaalu loolu la ko laaj Omar ibnul Xataab waaw moom ku ñeme laaj la te nangu ñu di ko laaj waaw ku nangu woon laaj la te nangu ñu di ko laaj moom la ñu diw dafa dëggu saa boo ko déggee na doon ku nangu ñu wax ko dëgg ndax muy waxaati dëgg Omar dafa ñeme woon laaj waaye nun la nangoo woon ku ko laaj laaj nañ ko ba tàyyi ba ko mbokk ma laajee waaw yow sa xaftaan boobu nga sol noo def ba mu jot <laughs> da ko audité en direct waaw ah, da ko audité en direct Omar daa ñëw di xutba daat ni yéen jullit yi ñu ngi leen di sant ngeen dégg ak topp jën waaye nañoo xeet ci biir mbooloo ma ne ko duñ dégg duñ topp te waxoo sa xaftaan bi noo def ba mu jot xam nga laaj boobu ci biir mbooloo xam naa déranger waaye teewul Omar tontu ko ca tey nag Omar moo laaj yaa Rasulallah innaka faaltu shay'an lam takun tafalu tey de li nga def daawoo ko def mu ne ko lan mu ne xëy jàpp jàppaatoo ba gee te yow da daan jàppal suba jàppal tosbaar jàppal takkusaan jàppal timis jàppal gee lu lu xew tey lu xew tey mu ne ko am amdan faaltuhu yaa omara omar mu naa mu ne ko pourtant ko tey ci waxinu wolof loolu loolu waxeen la ci biir am amdan faaltuhu yaa omar waaw mu ne ko li ma def rëccu ma de imaam ahmad netti na ko ak muslim ak yu deme nekk ñoom kon beesal njàpp yoon waa ngu noonu ibn amr ibn amir ibn ibn amr ibn amir al ansaari nee na kaana anas ibn malik yaquul kaane nabi yatawaddau inda kulli salaa mu ne yonent bi daf daan jàppal waxtu wu ne qultu ma ne ko fa antum kayfa kuntum tasnau qaala kama nusalli salawaat bi wuduin waxid maa lam na maa lam euh, naxdus aw kama xaala euh, anas la ñu laajoon mu ne yonent bi day daane def julli gu ne mu jàppal ko ajilaaj laaj ji daane anas waaw yéen nag nu ngeen di def mu ne ko nun kay mën nañoo xëy jàpp li fekk toj liwun ñun duñ jàppaat soo boolee ñaari wax yooyu dangay ngay yëg ne kon dañoo sopp beesal njàpp waaye kum neex bañ a beesal waaw dañoo sopp sopp beesal njàpp waaye kum neex bañ a beesal waaw rawahu ahmad wal buxaari nu jële ci Abu Hurayrata ba tey ci bunt boobu nga xam ne mooy euh, yi nga xam ne sopp nañ ca njàpp te toll ci beesal njàpp nee na alayhi salaatu daa wax ne lawlaa an ashuqa ala ummati la amartuhum inda kulli salaatin bi wudu wa maa kulli wuduin bi siwaak mu ne suma ba ñu toona sonal sama xeet wi te sonal saw xeet jara daw mu ne kon dama naan leen julli gune dee leen ko jàppal hmm? mu ne waaw mu ne su ma ba ci sama xeet dama naan leen julli gune na ngeen ko jàppal ñu ne waaw mu ne njàpp lu nekk na ànd ak soccu hmm? waaw waaw julli gune na ànd ak njàpp njàpp lu ne na ànd ak soccu su ma ba ñu ngeen sonn su ko defee ña nga xam ne am nañu euh, kii ba ndigal la daal ne kon ñoom nañ ko jël waaw nañ ko jël rek tabarkàlla ndax ginnaaw moo ko gënal coono la ñu dawal mu ngoog imaam ahmad nettil na ko bi xasan bi sanadin xasan abdullah ibnu amar tam mu wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man tawadda ala tuhrin kutiba lahu asru xasanaat nee na daana wax ne ku julli jot fekk laak njàpp nga tegaat njàpp ca kaw njàpp la ñu bindal la fukki tuyaaba ku julli jot fekk laak njàpp nga jàppaat ca kaw njàpp la bindal nañ la fukki tuyaaba benn tuyaaba nag moo ëpp jëppal <laughs> benn tuyaaba mu ëpp Sacré Cœur un deux trois benn tuyaaba ëpp waaw ma jeexal ci ay yëf yoo xam ne professeur dana ko soxla waaw aji jàpp junne it dana ko soxla mhm. ma jeexal ci tomb boobu la ci jiitu mooy wax ju dagan dagan na ci biirum jàpp professeur lu lay tom bu njëkk bi wax ju dagan dagan na ci biirum njàpp note ko maanaam di di jàpp wax ci biir njàpp la dagan na note ko bu ñaaral ba di jàpp cër booy raxas nga nga nga nga def ak ñaan boroom téer yi nee nañ jëru ko boroom téer yi nee nañ jëru ko la fa yónnante ba jàngale yem ca kepp ndax jéggi ko euh, du ay teggin loolu tomb la bu am solo muy ñaar ñetteel ba professeur ci li aji jàpp ji di soxla te bëgg ko xam mooy kuy jàpp ba mu yàgg nga ne man de sama tànk bi xanaa ñaar yoon laa ko raxas walla benn nee na jàppal alal yaqiini lu yaqiin mooy la gën a tuuti boo ne ñaar ak ñett jàppal ñaar boo ne ñett ak ñeent jàppal ñett boo ne ñaar ak benn jàppal benn maanaam li gën a tuuti rek ngay jàpp daal di mottali ñeenteel ba eh, loxo yu niin ak xeeti diw yi walla xar kanam bu niin ak xeeti diw yi wala tànk yu nin aqee ci diw yi day xajam njàpp day yàqum njàpp dangay jàpp ba noppi diw boo jàppaat raxasal ba mu set nga door a jàppaat ca kaw booy diw nga diwwaat diw yooyu jar naa bay xel lool tabarakallah waaw juróomeel ba jigéen joo xam ne ay réglam dafay dafay perturbé wu di romb fa mu daan yem ak góor goo xam ne gi dafa am feebaru salis ñooñu dañoo bëgg saa bu julli jotee ñu jàpp waaw juróom-benneel ba daggan na ñu lay sottil ngay jàpp waaw juróom-ñaaral ba dagan na nga jàpp ba noppi jël mouchoir fomp jël charbet fomp say cër mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg si Sud FM seen rajo teg leen seen baaraam foofu ñaan suñu borom maynu lu nu dund ba déglu ko ñetti yoon ak ñeent daal di indi beneen bind bu bees incha allah wa kullu amin wa antum bi xayr koor gaa ngi ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen kayit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi toi firim fàncaloon ko ci wolof yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir